plusieurs productions au niveau national même international macha allah man nag maa ngi ko découvrir woon si la collogène ñi ko doon woowee monsieur Ndiaye ah nekkoon benn benn kii bu jantal xam nga coofee temps yoo xale yëpp dañ ko nomoon quoi <laughs> Mouri Fall ah Mouri Fall jamono ji nag ñi ñaa gën a xamee si tonton Sène parce que gis ngeen idole bi li mu ciy def mu doon doy waar tabarkàlla macha allah kon kooku la ñu seet si tey fii ci këram fas yéene ànd ak moom si li ma métti show nga xamante ne day tàng day métti pétaaw bu jàkkaarloog ay garam du yomb a baax euh, monsieur Fall mais merci donc de euh, euh, avec ton nom symbolique hein. <laughs> j'adore pétao parce qu'en fait ça symbolise l'Afrique ça symbolise notre culture nos croyances notre identité culturelle Alors trop euh, bon ñun eh, nous eh, bokk ci génération yi nga théâtre populaire sénégalais eh, donc euh, d'après donc euh, les débuts de yàlla dimbali ñu aussi eh, ñu koy avec les nouvelles générations donc ñun euh, di nga am may nañu ñu dund ko ci théâtre radiophonique Sénégal télé Hein, donc, euh, le moment du théâtre populaire, hein, qu'on peut dire aussi le théâtre éducatif. Euh, Nous sommes tout temps ci jamono donc avec cette génération mais aussi à Omar hein, qui était un grand homme de culture euh, donc euh, jamono di télévision en noir et blanc euh, télévision couleur nek fi et mu am une nouvelle génération Nous xamné aussi bon ñu ngi yëngu ci théâtre bi di yëngu ci cinéma Nous ñu ci également ak n'est-ce pas donc di dundu ak euh, ñom ci di len qui nga am yokk euh, si expérience ci li ñuy fortatu dans le cadre donc de notre parcours mais comme nous l'avons ko la collégienne nekk na ben étape bu marquante dans mon parcours culturel et artistique effectivement parce que am na benn jamono monsieur Ndiaye rek lañ ma daan wooyee monsieur Ndiaye ba ñu bari dafa woon Ndiaye sant voilà donc ça a vraiment été donc euh, une euh, belle production de l'époque qui a marqué plusieurs générations hein? mais tey jii nag idole la comme tu dis xam nga. non temps yi moom monsieur tonton temps yi moom tonton seen xew moom tonton seen bàyyi sikkim bi nii voilà léegi lugu sikkim bi nii weexal ko nii def ko def kii comme ni ko xale tuddee dadi chocolat xaw ma genre noonu la xale yi tuddee yéen noonu la xale yi quoi dadi chocolat. ah oui oui enfin man de dañ may wax euh, waa borom barbe poivre et sel bi non mais loolu nag yàlla moo ko def ah c'est bon teint ma ko couleur ma ko bon c'est venu naturellement ah ma barbe elle est venue naturellement donc euh, man bokkuma si ñi nga xam ne dañuy dañuy dañuy def artifice quoi non non non non c'est venu naturel et puis je je je porte ça quand même avec avec une grande fierté parce que alalu yàlla la voilà yalla bu la may sikkim baax na bu la may eh, da nga am eh, moustache baax na bu ko weexalee it nga xam ne ci nga toll nga dund ko bon terewul nag en tant qu'acteur comédien effectivement des fois nga def artifice pour les besoins d'un rôle n'est-ce pas de façon ponctuelle mais man nii laa mel sama jëmm ji ñu bari nag ñenn ñi dañ naan barbe bi ñi naan def ko teinte ñi naan daf koy jekk-jekkal non non c'est naturel je suis comme ça donc euh, c'est c'est ah, merci merci <laughs> voilà xam nga euh, boo gisee ñu dugg ci loolu da baax xale yi nga xam ne ñu ngi xëy xëy di seetaan tonton seen si dool xamuñu parcours nga xam ne ñu ngi doon suivre avant bien avant que ñu ngi ay la collège nag yeneen ak yeneen yoo xamante ni yaa ngi ko doon def mais film bu ñëwee dafay am koo xamante ni moom mooy nekk vedette bi comme ni nga ko nekkoon si la collège macha allah nga nekkoon si monsieur Ndiaye ñëpp demoon ba xam la ba nga waxee ñëpp foog na sax Ndiaye nga sant tonton seen bi nag ñëw génnewaat beneen facette si yow beneen beneen look boo xamante ne nii être ñi la doon seetaan xamuñu ko woon mm-hmm. waaw effectivement parce que xam nga comme dañ ma xamoon euh, si njëlbeen ma daan jouer ay rôle tout tank génération yi di dox may jouer donc rôle waxambaane génération yi di dox et may euh, donc jouer rôle donc euh, adulte hein dans la fleur de l'âge adulte mooy période monsieur Ndiaye bi bi may toll ci nekk professeur mais avant boobu amoon na ay yeneen génération yoo xam ne xëj na yooyu yéen ñi leen gën a féetee mag ñoo ko dund <laughs> waaw mais effectivement ñu jóge ci loolu aussi bon mu am benn génération bu tolloog monsieur Ndiaye euh, du moins dans euh, tonton euh bu idol bon ma koy joué ak yeneen ah maa ngi def sa yeneen yoo xam ne bon mi ngi ci yoon wi incha allah ñu ñaan ñu fekkee côté tal ko et puis que public bi donc euh, adopté ko donc idole nekk loo xam ne benn période de ma vie dañu ma ko proposé et ma jox ko tamit gëddëm et vraiment machallah, ça a porté ses fruits parce que non bon de de ma coller à la peau en fait même bu au Sénégal, vous ne ci Sénégal ba bitim mais c'est tonton Sen quoi tonton Sen, tonton Sen, machallah. et puis l'autre en fait voilà nga am ci reconnaissance donc du public puisque généralement notre métier bon euh, ne nous ne, nous donne pas euh, euh, certains avantages hein, je ne dis même pas matériel mais financier mais di nga am reconnaissance n'est-ce pas donc de de la communauté euh, boo xamante ne loolu moo gën sax xaalis en fait voilà parce que euh, dara dàqul adina euh, bi fo dox ñu xamé la xamé la ci li ngay liggéey muy feñ ci télévision bi à travers les productions yi ngay liggéey nit ñi di ko apprécier donc lolu sante yalla la voilà donc lolu mo waral bon ñu identifier ma xamé ma ci idole bi ma ñew nak ak lu bu bees bi ngay wax c'est-à-dire avec la barbe poivrée et sel comme ils disent voilà loolu nag top personnage du hein parce que il y ci ay rôle bon y ci ay production sénégalaise mais aussi des productions étrangères hein. parce que y a un film bu black and white mu nekk feuilleton français beaucoup ci production euh, euh, française bi a mag ci 2020, n'est-ce pas Moussa Sen a réalisé quoi, mais avec une grande équipe française n'est-ce pas avec beaucoup de moyens d'ailleurs gis nga ñun d'ailleurs yooyu ci la ñuy gis sax suñu bopp mais film Sénégal yi dañ koy def parce que dañu gëm aar bi dañu gëm jàppale suñu dëkk et contribuer ci suñu patrimoine culturel artistique mais loolu mën naa ne eh, li ma ci gañe bu ma liggéeyee at ci Sénégal loolu laay gañe ma liggéey ko foofu ci ay fan rek <laughs> ci production boobu moo ñuy wax black and white n'est-ce pas bi nga xam ne génn na déjà defe naa ci euh, ci ci A3 su ma juumul am na daal benn télévision française bu mu génnagum mais am nañ yaakaar ne aussi dina ñëw Sénégal mu nekk benn feuilleton boo xam ne aussi eh sikkim bi am na ci jëmm parce que dañ ma ci jox lu buur bu ñuy wax donc euh, le roi Mboy n'est-ce pas ma nekk ci biir film bi euh, pappu actrice principale bi nga xam ne princesse la bu ñuy wax Fari mu nekk xale bu jigéen bu tudd Marème Ndiaye ma koy def un coucou au passage n'est-ce pas donc euh, mu nekk benn sénégalaise bu nekk en France moom it di xartànkutu wéem bu baax ci walu euh, donc euh, le domaine bon de euh, de de l'acteur hein elle est actrice hein elle est actrice comédienne buy vivre en France mais vraiment di ñëfé tamit life am il y a y a y a il y a de de de de gros investisseurs yo xamné ma ngi liggéey ak ñom ci ay projet yu am dolé bon lu melni par exemple watu watu production hein parce que mom def nañu ben produit bu ñuy wax wala bok bo xamné pratiquement rappeurs yi gëna a mag ci Sénégal ñi ngi ci film boobu et puis bientôt ça va être porté à l'écran hein. waaw maanaam daal mënuma la sa limal ñëpp mais am na lu mat peut-être euh, juróom ba ci juróom-ñaari produit yoo xam ne maa ngi ci liggéey nii ak ay partenaires yu mag macha allah euh, bon maintenant pour revenir à Idol, bon Idol ñoom ñu ngi continuer def seen liggéey parce que dégg naa ñu ngi ci euh, kii nu mu tudd infidèle ah hein, ñu ngi ci mars bon idol bi ci boppam sax bind nañu huitième saison bi nga xam ne ah ci liñu wax ah nenañu nañu mi ngi ci yoon wi ah donc ñun ñu koy xaar xam ñun moom door mu daanu lañu xam bu ñu ñëwee tegal ñu ñu def ko nawon fawoon rek. mais mais yeen idole dañ leen amel xaaliss moo tax euh, production bi bloqué. euh bon amna lo loo nak ne nag bugguma dugg ci trop trop. parce que mais dañ leen amel wala ameeluñ leen. mané gis nga liggéey bu agul buñ la ci déssélé xaaliss yoon la fofu la mëna am duma dugg nak ci ay détails dama né gis nga tey jii ko la joxoon këram pour ga tabax ko nga liggéey kër gi ba kër gi taxaw waaye yow raaxa goo ko peinture goo ko kon jaadu na ñu am lu ñu la deseel mais man maag idole bu ñu waroon jàkkaarloo ma war a continuer li des ci idole dinañ ma fay liñ ma ameel lu leer laa la wax loolu mu amul sikki sakka mais nag euh, ni mu demee aussi c'est normal parce que liggéey bu àggul nit ki deseel la ci <laughs> mais kooku. seen contrat da ngeen ko signé woon pour ñaata saison ba tax xaalis bi war a des te tant que àggal leen ko duñ leen ko fay. non moom laa la wax dañu signé woon contrat pour set et huitième saison waaw def nañu sept bi huitième bi àggagul non moo tax gis nga gis nga yenn coow yu bari sax déer gis nga man pour man àddina da ko jar jaru gis nga man xaal xaalis man fi la may fekk fi la bàyyi man su ma diggante ak idole dara du koy yàq mais bu ma amee lu may régler ñoom. damay dem régler ko te du ma jaar sax ci réseaux sociaux te luñ ma ameel àlla kulli alin bu ma ko bëggee te mu nekk lu ma lew lu ma moom dañ ma koy jox amul sax sikki sakk c'est que nag xam nga des fois euh, nit ñi ñoom ñooy yàkkamti rek wala boog ñu bañ a diagnostiquer situation xool di nga am li ci biir mais li ma la wax lu leer la dama la ne ki ngay liggéeyal ngeen digge benn liggéey liggéey ba àggagul kooku bu la desee deselee xaalis jaadu na

mais man man du ñu ma tardeel du ma taxawal du ma téye parce que maa ngi ci yeneen produit maa ngi liggéey di xam nga di di ñàkk suma live di ko gagné donc man du ma du ma toog ci kenn ku ma amel te liggéey la ñu waxee woon sotteegul ma toog di ci wax wala di ci taxaw wala xoola mu may téye xoola man xoola avec ou sans quel quelle production damay dem ci kàttanu borom bi waaw parce que suma métier dama ko bëgg dama ko gëm dama ko jàng nag moi je suis un des rares euh, produits de l'école nationale des arts en dehors de 40 ans d'expérience, j'ai fait une formation académique qui m'a fait atteindre un niveau le plus élevé, n'est-ce pas, dans le cadre de la formation d'acteur comédien. Donc, tey jii man damay formé man damay formé nit ñi nga xam ne dañu bëgg acteur ñu ñu encadré seen i kii dañ donc gis nga métier da nga koy jàng da nga koy maîtriser da nga koy mën bu ko defee yow xool dañ la ciy soxla faire. ñi ci gën a kawe ñoom lañ ñoo la ciy soxla tey jii les producteurs, étrangères bu ñëwee mais ñun suñu genre de la ñuy soxla. parce que ñun mën nañu ci langu ko ci barme bi mën ci langu Molière bi ba ba pare itam xam nan la ñuy interpréter parce que li ñu jàngal américain anglais allemand ci wàllu maanaam technique codifiée sur le plan de l' interprétation ñun dañ ko jàng mu mel ni comme nga dugg université wala nga jàng médecine métier loolu métier da nga koy jàng maîtriser ko bu ko defee kenn du ci tee ñi ma defal formation ñi ci ëpp ñi ngi à l'étranger ils gagnent bien leur argent c'est que man dama gëm sama réew voilà moo tax ma toog gëm Sénégal même bu doon ñaar dërëm laa fi am ñoom ñu am ay millions amul solo damay toog liggéeyal suma réew voilà voilà. kon su ma déggee yow Idole amelu la xaalis parce que huitième saison ngeen waxoon te yéen septième saison donc tant que àggul lu ñu leen a mottali. waaw mais bien sûr mais loolu moo logique. cest à gis nga àddina àddina dama ne gis nga àddina da ngay xool lu jaadu liggéey bu fekkente yow da nga ko diggee ak nit liggéey ba aggul mu am lu mu la deseel dama ne jaadu na waa nit nag xëj na mën nga yàkkamti wala itam nga bañ a jàpp ne dogal dafay am ci àddina donc nga bañ a euh, comprendre nit ki wala nga bañ ko muñal wala nga yàqamti jot sa xaalis mais nag moo man de man de yooyu du ma tardeel man yooyu du ma téye wax dëgg yàlla comme maag moom la ñu waxoon la ñu waxoon àggagul even pour mais damay toog rek muñ gëm yàlla bañ a jiital alal bañ yàq tamit diggante ndax kóllëre ginnaaw lay féete comme dañ daan bokk di liggéey ñu ñuy fay muy mat bu ñu demee ba mbir mi taxaw te jamono bi ñu gis Covid 19 bi am na fi leen am na fi leen amaat na fi amaat nañ fi te nag euh, nit kii boo nekkee ci touche bi mënoo xam lan na ci biir waaw donc man euh, dama naan sumay partenaire lañu euh, ameel ma xaalis du tax may yàq suñu diggante damay toog leen seetaan parce que gis nga nit lépp loo war a lekk bu àpp ba jotul doo ko lekk lépp lu baaxul ci yow jigu la bul ñaan yàlla mu agsi kon ñun ñëpp nañu bokk gëm yàlla ànd ak dal ak tekk ak tey. te di muñalante mais aussi ku nekk itam ngay jox sa moroom àq parce que nag nañu waxante dëgg bon man vraiment damay wax Ivan Prod ne leen nañu góorgóorlu li ñu diggee woon ak nit ñi aussi et ñu góorgóorlu ci parce que góorlu tam mooy tax doon góor voilà donc man damay ñaax et ñi ñu séqal ñu am dal am muñ waaye ñoom it et ñu bàyyi xel doomu aadama yi nga xam ni ci métier bi la ñuy dund loolu am solo la parce que ñëpp aussi amuñu moyen euh, amuñu muñ Euh, amuñu aussi euh, kattan wala pexe toog di xaar loo xam ne dañ ko yaakaar te jotuñu ko parce que ñenn ñi nag dañuy saalita mais gars yi bàyyi leen saalit bàyyi mais idole aussi xool góorgóorlu leen euh, avant avant projet je veux dire góorgóorlu leen vraiment parce que avec idole addina moo ko soxla idole lépp luy lu fiy jaar xool idole dafa ñëw xool teg ko à côté daal ne man xoola bu ma soxlaa ñëpp ñàkk kon idole bi àggali leen ko ñun gis nañ fi dégg vingt am 24 gis nañ fi ay waa waa waa prison break ak yeneen ak yeneen ak yeneen ñun idole moom mooy suñu 24 heures chrono mooy suñu prison break donc bu leen ko yàq àddina da ko soxla et puis c'est le patrimoine culturel national liggéey leen ko teg ko ci yoon yàlla def ci xéwal ak barke et ñëpp gis ci seen bopp muy àddina muy ñi ko seq muy ñi ciy liggéey yàlla na ko yàlla dogal jaa ngeen jëf gaa yi mbir mi loolu rek la waaw mu nekk loo xamante ne lu leer la parce que boo gisee temps yi li tax ma insisté foofu mm. maison de production yi yu bëri dafa commencé di yëngatu mm. dégg nañ ko si yéen waa Even Pro dégg nañ ko aussi si waa maîtresse si waa Mburodi mm. ñu def maîtresse d'un homme marié mu mel ni coow dafa commencé di tàmbali donte bi mu jógee xale yëpp dañu daw uti ji ko ñoom ñëpp bëgg a nekk ay acteurs ak ay actrices donc bu coow lu mel noonu jógee yow en tant que doyen nga nga raisonné waat leen waxaat leen gën leen a ñaaxaat dina dina baax ci lu mel noonu comme ça ñi lay seetaan xam ne aussi dara yombul ndax ndar xëyru xëy nekk dëkk dañ ko liggéey 350 ans. ah amee bien sûr bien sûr xam nga ñun métier bu ñu ci nekkee euh, di ci liggéey euh, lu ëpp euh, ñeent fukki at te bañ ciy door nag duggee wuñ ci xaalis. duggee wuñ ci woon jiital ndam lenn dañ ko buggoon rek te yàlla tax xëy na ndax jamono yi fi mu toll e nit eh, baax na sax looy yëngu nga gis ci sa bopp waaye yàkkamti itam am na solo parce que yàkkamti eh, dal am na solo du moins waaw waaw waa ngeen jégal ma dal ak lépp looy def nga jël ko teg ko ci yoon dafa am solo parce que yàkkamti yàqule Sëñ Abdoulaye dafa waxoon daw ndànk dal ndànk loolu am solo kon métier bi nañ koy jàng te bañ ko jàngantu di ci def ndànk ngir mën ci jëriñu ndax gis nga loo doonul taalibeem doo doon sëriñam te it mënoo fee euh, bañ a jàng ba pare tari ah loolu kat duñ ne yàlla mosu ko def de mais mayu ko ñëpp donc euh, xale yi euh, métier boo ko bëggee jàng leen ko mais aussi def leen ko ci yoon parce que nag barke rek moo am solo gis nga le barke la moo ko ëpp solo waaw barile te barile bi du la jëriñ wala barile bi e da nga e, daf lay ñaawal sa der e, indi la woy wu ñaaw ci sa gannaaw loolu àddina jaru ko donc ni ngeen góorgóorlu ngeen jàng ci bi ngeen teg ko ci yoon bon même les maisons de production man dama leen di wax ne yéen e, gëm leen yàlla jiital leen yàlla li ngeen di liggéey fexe leen ba yéen boo leen ci màgg comédiens yi ak acteurs yi ci liggéey ak techniciens yi ñoom it liñ ciy gañe di màgg addina loolu moo tax mbir mi di barkeel gis nga tubaab yi boo gisee ñuy def ay chef d'œuvre muy gañu ay milliards parce que ñoom ku liggéey ak ñoom da ngay kontaan ba ci comédien bi ba ci ouvrier de scène bi ba ci technicien bi ñooñu ñëpp ku ci nekk dangay lekk ba suur këll moo tax lépp lu ñu def mu am barke. waaw dañuy def benn produit mu wër àddina bi yëpp ñu gañe ci ay milliards yu dul jeex multiplier wu donc loolu li koy waral mooy ngay jox nit ki ak parce que yàlla dafa bëgg loolu mbooloo moo gis bu amee yërmande ku ci nekk gis ci sa bopp ñu joxante cër joxante ak mais yàlla da ciy def xéwal donc ni ñu gëm loolu ñu gëm ne aussi ku nekk bëgg a demal boppam àddina du doxee noonu booloo mooy doole ñun gis nañ fi Hollywood ah Hollywood mën nga nale mais ay ay borom doole yu bari ñoo dajaloo di ko defandoo jàppalante ànd moo tax cinéma américain am doole mais bëgg def Marodi fee ah bëgg a def Evenprod fii bëgg a def Massamba fii Mademba fee gis nga dama ne booloo leen gis nga mbir mi booloo mooy doole lu kenn mën fu ko ko dàq na ñu fexe ngeen di booloo bañ bañ a xëccoo daal bañ a gaañante bañ a gàllankoorante waa bañ a mettrante des bâtons dans parce que gis nga cinéma mais xam nga cinéma lan la cinéma géej la géej mbàmbu lan la États-Unis moo ñu gër ëpp rëy gën ñu ëpp ay production mais seen production ay milliards lay jur donc ànd leen ngeen booloo ànd ak dal ak teg ak tey yéenante jàmm dégg nga def ay grands ensemble cinéma xam nga sénégalais jëm kanam ñu nekkaat leader en Afrique parce que loolu la ñu doonoon ci jamono du Sidak mais dof-dof lu nañ ba Burkina beeg ñeneen ñëw imposé jël ko suñu loxo di def ay étalon de yéen a ngaa tey ji ñun ñu toog nekk ci ginnaaw te ñun ñoo jiitu woon mais donc nañu delloo siwaat suñu xel xam ne gis nga booloo mooy doole et puis nit lépp looy def def ci ma yërmande nga jiital ci doomu aadama parce que yàlla dafa ne ni may mën a mesurer nit ki bëgg na ma mooy ni muy defee lu baax ci doomu aadama kon nañu delluwaat vers les pratiques anciennes maanaam delloowaat nit cëram ngir wan yàlla ne ko eh, ñun ñi suñu dund am na solo fii ci àddina mais nekk di xeexante suñu biir di lekkante suñu biir di gàllankoorante suñu biir dama ne loolu xool sampul kër waaw donc message baa ngi noonu jaa ngeen jëf waaw voilà muy un cri boo xamante ni boo ko déggee mu wax sax da ngay xamante ni ko xam li muy wax la koo xamante ni dund na ko carrément mu gën a ñaaxaat xale yi gën a ñaaxaat surtout maison de production yi nga xam ne léegi ku mer rek dem ngembu ubbi sa benn ut sa benn caméra woo ji bi ak Ablaye Diallo bu ko defee ñu ñëw ku nekk yor sa maison ngeen di xeexante ko doorante bu ngeen boole woon Nollywood mu ngi fi ah novelas yooyu yëpp da nga koy gis ay kii yoo xamante ay maison yoo xamante ne dañuy booloo nekk si bitim réew ba ñun sax dañu leen di seetaan dañuy abonné si ñoom donc ñun Sénégal bu ñu booloo woon rek dinañ suñu suñu mën a ah, dem daal mais ñun ñàkk booloo mooy suñu mais mais affaire bi lool rek la pour dire que àddina booloo dal moy doole quoi euh, voilà. mais man dafa am kuma xam nak kula xam kuma ma wax ne ma euh, monsieur ndjay biñ ko koy wax biñ ko tuddé nonu ci la collagène mm. am nak ben diir bo xamanté dañ ko atteindre won mystiquement mo taxone ken déggatu la nga fay carrément la fali ko nga dugg sa maamu xam nga yeen ceddoo ngeen sa maamu fal faal ñom feulé dem feulé kadior sangu ki waat affaire yi ba ñewat relancer wat quoi. wa luma la mëna ah man dé ma ngi ci giiru damel la waaw waaw waa kër la man dand waa kër maa <laughs> jox mais laal la non li ma la mën a wax mooy gis nga mm, euh, gis nga nattu nattu amul kum dul daal nag moo xam nattu ba lan la ak kañ lay jeex parce que nag lépp dafa am àpp de gis nga nit loo jeex. mais laaloon nañ la. waaw mais dégg la wax dama la ne gis nga nit nit nit lépp lu ko dal rek ah lépp lu ko rek ah, yàlla ci boppam da cay ànd mais tamit gis nga nat boo ko boo ko tegoo euh, te jooyuwoo on ko euh, saalitoo yàlla mu ko teg foofa wala muy xool ba mu tegu fa dana la ko dindil maanaam nañu mooy ci gëm yàlla rek nañu ñoo ci parce que gis nga dundee fay yooyu ñu la defoon noonu nga nekkoon ci boobu di ko dund lan lan nga doon sant. te nga bàyyi affaire fay loolu loolu yàlla non non yàlla moo ne suma parcours il fallait ma ma dund loolu man pour man duma ko jiiñ nit ko jiiñ keneen dama naan gis nga yàlla moo ne il faut ma jaar fii ak fii ak fii pour àgg fële waaw man xam nga am na détail yoo xam ne du ma dugg. ma yooyu gaay lañ waaw ma ne nag àddina bi nag kenn du xam lépp wax lépp déggoo ko ci barama dafa ne. dafa ne dérangé woon ba tax mu atteindre la mystiquement. ma ne ko ci barama def ne fu jàmm yendu am na luñ ñu fa waxul te nag euh, euh, am na loo xam ne daal jar sa wax daal gis nga àddina moom euh, li am solo rek mooy yow na nga fexe ba boo jógee A jëm Z nga àgg rek waaye fa ngay jaar ak la ngay daj mais mais yow yonent yi buxaaba yi héros yi ñoom lu ñu daj du ko daj te atteindre nañ seen but te it bàyyi nañ fi wéy bu rafet te loolu moo am solo man loolu loolu moom moom ma loolu moo may yëngal waaw loolu moo motiver loolu laay sentir te yëpp mooy sama objectif mooy ma liggéey fi loo xam ne moo fi jógee sama ginnaaw ba nag te ah maa ngi ci nag xëj na nag xaaju ma atteindre li ma bëggoon di ñaan yàlla mu gën ma ci dimbale mais loolu moom moo am solo quoi nit ki nga liggéey sa àddina bu boobu jógee ñu ne kii àddina am na njëriñ ñu am lu ñu lay fàttali ko donc euh, mais xam nga toog naan ma sàmba wala ma demba man du ma dugg ci yooyu daal waaw ah ah leen danaa la ko xam nga dañuy wax naan yaa fi sese tax a falu xam nga léeg-léeg nga am foo bëgg a toog mm-hmm. fekk ku fa toog xam nga kooku moom ah yow bu <laughs> bu la mënoon faagaagal pour nga bañ a ñëw toog fa mu toog dana ko jéem bu dee ku gëmul yàlla nag parce que nag nit aussi da ngay gëm ne euh, jamono jii la ak la cay xew xew-xew yi aayul xamalu bon ñàkk xew waaw ñàkk xew bon mais xew-xew yi aayul yàlla nag am na ñu muy may ñoo xam ne bu ñu xewee doot ñu xewi yàlla nañ ko yàlla defal am na yàlla tamit am na ñu may may ñu wax dañuy xew toogaat vingt ans ah, ñu ndës leen ñu jékki-jékki jugaat <laughs> yoraat yoraat yoraat affaire bi daal fi mu ne nii moom yaa yor affaire bi moom macha allah mais nan nga gisee. <laughs> yow ma ne man mag laa it. nan nga wax loolu lu ma bëgg te wax. dama la bëgg ne gis nga àddina ehm, du du lépp la ñuy wax. et puis des fois aussi da ngay gas suul quoi. Mm-hmm. waaw parce que gis nga gis nga nit. loo ko yéene yéene yéene lu bon. hum bu yàlla antul du mën a nekk te it euh, bépp ndo euh, maanaam ndogal bu am ci àddina euh, bépp natt bu am ci àddina dafa am ab dafa am ab nit gis nga nit muñal rek ba pare mu muñal liggéeyal làqul sa gannaaw borom parce que yàlla dañ ne boo ko denkee sa lépp mu yoral la sa lépp. noo gisee noo gisee noo gisee tolluwaay réew mi jamono ji surtout milieu bi nga xamante ne moom si ngeen nekk di yëngu di dóor. waaw ñun li ñuy yëngu di dóor suñu waar man li ma gis mooy. yàlla indi na ay jumtukaay yu bees ba nga xam ne produire euh, gën na yomb et puis tamit euh, ku ci am xarañ mën nga am ay yoon yoo jaar ba la ngay liggéey nga mu mën a jur njëriñ donc mbir mi nañu def yërmande def yaatal waaye itam jiital nag dëgg la gisee nga méngoog son personnage ma jël la mais du ma la gis parce que da nga rafet ma bëgg la sàkku ma ne donc naa la jël nax la indi la bi day duggaat foofu. waaw maanaam àddina bi dama bëgg gis nga lépp lu ñuy def nañ gis gis nga gis nga américains yi wala euh, euh, nasaraan yi bu ñu soxlaa personnage ñu sentir ko bëgg ko gëm ko da leen di jaral ñu jóge États-Unis dem ba xoolal au bout du monde au fond fin du monde pour wuti benn nit boo xam ne da leen di leer ne kii la ñu gis kii la ñu mais gis nga kooku bés bu ñu ko génnee. ah non non mais mais xoolal kii euh, nu mu tudd euh, ki euh, kii waay film americain bi mujjee génn laa te acteur bi gaañu kii Black Panther xool ko dafa génn ëpp audience ci àddina bi te ci lan la sukkandiku mais culture africaine fii la lu ñu gëstoo fii te loolu loolu ñu ñoo ko moom ça veut gis nga ni ki li ngay def na dëggu na dëggu yàlla def ci barke man yow su dee yow laa soxla dama lay wut dama lay wër te bu jaroon yow dama lay jaamu damay jaamu sa sa bëgg-bëgg pour nga defal ma li ma bëgg. semence canapé bi nag moom dafa bëri ci milieu bi parce que léegi même bu góor ñi proposé sax jigéen ñi ñoo ne dama man bëgg naa génn. waaw léegi vice versa la mais vice versa la moom non non gis nga loolu yëpp yàkkamti na rek gis nga nit boo waree fël ci ci ci cinéma da ngay fël boo waree fël ci wëy da ngay fël waaw waaw dëgg la gis nga promotion canapé daal xool jëmlawul nit fenn walla boog bu fekkente eh, am nga ci ay mbégte ay waxtu yu ndaw lay doon nga jóge fa daal di màgget bu gaaw jóge fa nag yàq sa der ba faw loolu nag lu ko fi jar donc euh, euh, àddina na ñuy def ndànk di ci ànd ak dal di jàng suñu métier te di jéem a dundee lu barkeel nee nañ barkeel moo moo moo moo moo moo gën barile parce que boo barilee te amul njëriñ nga bàyyi fi wu ñaaw wala nga dem ba ci biir am ci gàllankoor parce que nag gis nga lépp lu nit def lu rek euh, am na ay natt yoo xam ne bu la dalee rek nga nga xeeb sa bopp te jaru ko nag gis nga seen métier maîtriser leen ko jàng leen ko te gëm it seen wërsëg waa parce que boo gëmee sa wërsëg mooy yow li nga war a lekk di nga ko lekk gis nga man maa ngi nii man macha allah xool man bu ñu may woo ci liggéey xool daf may fekk ma tëdd ci lal wala ma toog di julli wala ma toog di naan ataaya ñu woo ma ne ma kaay liggéey da ngeen di ñaan yàlla ngeen am tolluwaay boobu macha allah ñaan leen yàlla ngeen di dem ba àgg foofu te loolu li koy maye mooy nga jàng sa métier mooy nga mën sa métier mooy nga cëral sa bopp nag doo daw ci ginnaaw kenn parce que tey jii boo doon daw di wut ay rôle rek ñu xeeb la loolu am solo la donc euh, daal nit ñi daal delloo siwaat leen seen xel li ngeen di def ngeen teg ko ci yoon muy suma sama doom jigéen yi sama jarbaat yi et suma suma naataangoo yi euh, góor ak jigéen vraiment ñu delloo siwaat xel daal am na solo trop. dégg ngeen ko noonu conseil ah, boo xamante ne ni papa moo ko joxe ndijaay moo ko joxe waaye mag itam moo ko joxe boo ñu doon wax lan moo la gën a marqué sa àdduna loo xam ne doo ko fàtte mukk lan lay doon. Euh, suma àddina li ma dul fàtte mukk euh, mooy sumay wéyjur moment yi ñu génn àddina waaw parce que xam nga àddina yow booy dund ak say parents euh, da ngay defe ne ñoom duñ fi jóge mukk <laughs> da ngay defe ne dañuy éternel mais loolu en fait.

waaw waaw donc defal lu baax rek. lan ngay tàggatoo waxtaan bi neexoon na ah, tabarkàlla macha allah nga accordé ñu ITV bi ñu ñëw tamit waxtaan ak waxtaan bu am solo nga ñaax xale yi ñaax mag ñi wax soxorante gi am si biir réew mi wax ba ci affaire maraboutage si biir milieu artistique bi yëpp daal dara jaru ko. jaru ko jaru ko quoi waaw waaw bon lu may tàggante mooy affaire di la remercier d'abord hein. wala di di remercier li ma metti TV di remercier également si technicien bi jantal booy bi booy bu ñaawul bi waaw en tout cas kontaan ci yéen di leen ñaanal seen liggéey bi yokk. jëm ci kanam di la ñaanal yow it bon vraiment nga nga am ascension ci métier hein parce que tu as un très beau profil macha allah waaw man xaw naa la nopp ci benn saxam hein. tu es très mignon góorgóorlu nag dina baax incha allah euh, bon di wax waa Sénégal rek ne leen euh, nañu nañu nañu delloo suñu xel ñu bokk doon benn parce que man message may lancé man maa ci jiitu mais ak Sénégal yépp ñu delloo am yërmande te booloo doon benn ku nekk nag nga liggéeyal sa réew te yàlla tax. boo ko defee doo ko rëccu parce que barkeel rek moom moo am solo bari le amul solo bu fi kenn ñëw naan milliards yi dama koy jël lekk bàyyi samay morom wala séddoo ko wala naa da ngay fot waaw lépp boo ko defee lekk bopp boo ko defee soit sa biir dana daw nga fot wala nga am problème te alal tamit noonu la demee donc ku nekk na nga delloo sa xel ñu bokk ànd jàpp lëkkaloo liggéey suñu réew et ku nekk ci la nga nekk vraiment nga yëngu pour jëriñ jëriñ gis nga ko dix ans euh, Sénégal day décoller parce que la Chine def noonu la Japon def noonu la ñeneen ak ñeneen ñi nga dañu prise de conscience ñu et puis ji am euh, am ci suñu biir mais jëm kanam sax du Sénégal donc acca xol yi bu setee rek yaakaar naa suñu réew dafay daal di naat ma lool nag ànd ki nga xam ne dañ ko yàgg suivre macha allah yàgg ko supporté xam nga ne la collagène xale yi nga ne ñëpp euh, tabarkàlla dañ doon seetaan xam ne daf leen neexoon film boo xam ne daf leen neexoon ba bu dañu u sama ne dañu indi benn invité te ne suñu invité xam ngeen ne koo xam ne kenn présenté ko woon tonton Sène comme jamono ji moom la actualité bi di wax ton Sène waaw dégg ngeen li mu wax si maison de production yëpp mais mbégte la rek ma ak bànneex ma jaajëfal ko bu baax a baax si accueil bi franchement si euh, disponibilité bi aussi di jaajëfal képp ku ñuy seetaan rek fépp fu ngeen mënti nekk si àdduna bi ñu ngi di ziar di leen baalu àq bu baax a baax ndax xam ngeen ne koor gaa ngi ni di tàggatoo xam naa ne déwén incha allah buy ñëw yàlla ñu fi fekk te buy demaat yàlla ñu fi bàyyi jërë ngeen bii ñëw si biir Limametti Show